صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك وامق وهو صادق المخلوق وما ينطق عن الهوى المرء مع من أحب اللهم انصح بالأخيار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi sant yàlla bu baax ci mboolem ñu ci ay xéwal gën a yaatu gën cee sax gën cee barkeel mooy ne amal islam te nag ñu ngi tomb yu doy waar tomb yoo xam ne xaajo woon leeral ndax jamono soxla na ko ñu bari cee wax suñu kenn laay lañ xamante ni benn bi mooy gis yonent yàlla Muhammad yaqazatan sax na wala sax gis yonent yaqazatan ci jàkkaarloo ci janoo ndax am na lay kitaaban wa muy benn ñaareel bi salaatul fatih mi ngi ba waxe yàlla la tudd alquran ndax wax mën naa nekk wax yàlla ba pare te du nekk alxuraan loolu aajo woon na leeral beneen bi mooy am na du ab sufiyanke du yore sur nag tijaani ñu tuddee ko subha di kurus ndax am na cosaan wala amul cosaan mbokk yi incha allahu taala waxtaanu ci lël ci lii nañ bëgg mu tënk njëkk a bàyyiloo xel ñi ñuy déglu yàlla day maye ci ñaari bunt buntab fadlu ak buntab rahmatu fokk ñu taxaw ci ñaari càmbar ko tuuti fadlu tafdil yàlla xajalu ci kenn kii moo gën lii moo gën dañ koy bàyyi ndax nee na loola maa ko tikk sama loxo bi qul inna al fadla bi yadillaahi ñu bàyyi xel loolu bu baax fadlu ci loxo yàlla la nekk bu yaatu la nag bu bëri lim ëmb ni arafa mi mel di wax arafa dañuy wax gis nga faag yi ni mu daar gi ni mu xóotee laal gi ni mu guddee kaw ak suuf xaraf yi day wax ne fadlu mbir mu doy waar la kon danañ bu ñu bu ñu xamee fadlu rek danañ mën a dugg ci thème bi mu mu mu leer muy benn yàlla day may ci fadlu day may ci raxmatu yaxtas bi raxmatihi may yasha ñaar yi mbokk yi may yëpp ak ak ji moo ci gën a foor ba ci may gi gën a suufe day bàyyeekoo ci raxmatu ak fadl su ko jaam bi kese xam rek day noppal dafa am ñaari façon may ñu topp benn jaam yàlla ci alxuraan yàlla da ko may da ko xellee ci ñaari kaas bii kaas mi ngi tudd kaasam laduniya bii kaasam indiya yàlla da may benn wëli moo tax foog ñuy xaar balaa nit di wax déedéet bala moo condamné waxi nit foog muy tey tuuti yàlla mayee na ci indi yetu yàlla mayee na ci laduni yetu loolu mooy lan buñ demee tuuti rek jëm seeti xadir alayhi salaam nga xam ne werante nañu yonantu loolu du yonantu li gën a lënk ci waxi borom xam-xam yi du yonant wal xulfu fil xidri shahirun mun jali amursalun am laa waqiila bal wali woote ci ulama yi ci affaire xadir ñu ne yonantu ne déedéet ñu ne wali yu ci miimie ba maam alaji malik alayhi ridwanullah mbox wax ju rafet qul innahu saalihun tusdax wa tuxtarim bu ñu laajee xadir neel saalixu la kaane min asaalixin xadir ñaari kaas la ko yàlla xelale kaas bii mi ngi tudd indiyatu aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ma yaa ngi nun mbokk taalibe yi indina ladunna soo mënta taqale may yii toujours may jaam yàlla bu baax daf lay sonal atanaayu rahmatan alquran min indina wa alamnaahu waxul min indina mu ne min ladunna rahma indiyatu la xam-xam laduniyatu la problème baa ngi nii nag mbokki taalibe léegi lan mooy indina foo fekk alquran dee ko seetlu mu indi may ak jaam tudd baatu inda da cay am te ko jege am kee dajeeg moom am ñi bàyyi gannaaw am ñëpp a ci am xoola xadir bi ko yàlla may raxma min indihi toj na fi gaal pour yërëm ay miskin rey na fi gone pour yërëm seen bàyyi jubbanti na ab miir pour sauver alal ñaari yettiim loolu raxmatu nga raxmatu bi ni muy ni muy xelee ko di ko topp di dem kon foo fekk may ak indi na day nekk may koo xam ne danga ci am ku jege ku ko la jege am day yaatu ndax raxma dafa yaatu alxuraan tuddeen al tuddeen aljanna raxmatu wax na wa ama alladina biyaddat wujuhum fa fi raxmatullahi hum fiha xaali raxmatullahi foofu boo koy firi firee ko aljanna kon mbokki taalibe yi rahmatan min indina rahmatan gu min indi ci lay bàyyeekoo wa alam naa min la dunna maye la dunna kenn du ci bokkul doo aji kum ci xajal balaa yàgg ngeen yàqonte yàlla na xoolal yonti yàlla Xadir ak yonti yàlla Moussa taalibe ba dox xoquban la abraxu xataa abluga majmaa al bahrayni aw am day xuquban xuqub borom xam-xam mooy juróom-ñaari juróom-ñaari fukki at du ma toog te dajewu ma majmaa al bahrayni mooy sëriñ boo xam ne insaan kaamil yajmaa bayna shariati wal xaqiqati mooy majmaa al bahrayni du ma toog te gisuma ko yàlla naa dox xuquban baatu xuqub ñëw na ci suuratu nabay laabisiina fiihaa ahqaaban mu dajeeg moom. dox bu métti bii tus ci géej gi xiif mar tu mën a gënu taalibeem ba ñetti wax lañu wax mu ne ko mën dem ak yow hada firaaxu bay ni yow bay ni ndax lam soxla ci xam-xam day xelee koo ci la dun naa moo tax du yaatu bokki taalibe yi yaxtasu bi rahmatihi man yasha kon xàmmeel may ak rahmatu ak may may ak indiyatu ak may ak laduniyatu ñaari soo ñu taxawee rek li ma bëgg a wax ci kanam moom lay lay taayal da nga noppal qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayrum mimma yajmaun fadlu ñëw na ak rahmatu gis nga booy dugg ci jàkka njëkkee sa tànk ndeyjoor booy génn tànk càmmooñ mooy njëkk génn ndeyjooru fay mucc looy wax allahuma iftax li abwaaba rahmatika booy dugg ci jàkk booy génn allahuma iftax li abwaaba fadlika pourquoi booy dugg ci jàkka di ñaan rahmatu booy génn ñaan fadlu parce ñaari ñoo ñu séq yontu wax na ne aljanna jëf dafa yóbbu kenn lan yadxula ahadukumul jannata bi amali ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man xatta yataxammadani laahu bi raxmati yàlla yàlla may ñu raxmatu booy dugg ci jàkka ndax jàkka kat nit mën naa jàkkaarloog moom te du ko miin pour nga nekk nit ak jàkka day am leer gu ne ci yow néegam yàlla la du ku ne la fa invité ida raaytum rajula yaataadul masjida fashhadu lahu bil imaani ku leen gis mu ñeme jàkka rek ne leen ko muur leen moo tax boo fay dugg foog yàlla yërëm la nga ma dogo nga dogo min jàkka allahuma iftali abwaaba rahmatika booy génn yàlla boo ko jaamoo pare di ko ñaan xam nga loolu beneen débat la am nañu ne ñaan gannaaw julli amul cosaan ñaan jamaa yi waaye mbokk taalibe yi boo gisee waxtaan wii ñun ñun neen lay doon ñun taalibe ay taalibe ko seq ñaan gannaaw julli bi nga julli bi nga commencé ci allahu akbar jeexee asalaamualeykum loo ca tegaat yow la neex am na lu ci aju du temu tey waaye ñaan gannaaw julli bokk na ci maxalu ijaaba liggéeyal yàlla ba pare dégg ko loxo ñaan wala liggéeyal mbindeef dégg loxo yàlla ñaan ñaari bari yi borom xam-xam yu ne mazannul ijaabati la yonent yàlla Moussa ba mu rootalee ñaari doomi góor gu baax fa saqaa lahumaa summa tawallaa ilaa zilli da nga dégg mën a rabbi inni limaa anzalta ilayya min xayrin faqiir similaire saa la inna abi yad'uuka li yajziyaka ajra maa saqayta lanaa xool ñaan gi ni gaawee nangu rootal ñaari xale yi dékk yàlla loxo ci tàng ñu ne góor gi kay fayee ko si ibn abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqayta lana heure boo sonnee ci sa mbokkam taalibe soo paree rek nee ko ñaanal wala yow nga ñaan barabu ijaaba la kon fadlullahi moom la ñuy wëru yàlla ma ne bu ngeen ba pare dem leen ngeen wëri fadlullahi kon maa ci rek li ma bëgg a wax mbokki taalibe yi diggante rahmat ak fadlu ci la lu bëree bëree bëri nekk kon may yi ñu bëgg a wax nag tey yonentu faatu ñu toog bés Seydi Cheikh Ahmad Tidiane ñu ne gis na yonentu yàqasatan ñu ne du fi amee day baax nag ñun nit boo ànd moom tam yàlla may ko ak may may ga tegu ci xam-xam day eh, baax nga topp ko nag nan ko wax nga dëgg ci alxuraan ak xadis xeexee saaga ak xuloo eh, romb nañ ko jamono biñ toll jamonoy qul haatu burhanakum in kuntum saadiqina li ngeen wax buy dëgg alxuraan ak xadis nga aja nañ ci nañ ci waxtaan day baax na foo la xale yi toll fokk ñu nàmpal xale yi loolu nit soo ko joxee mbëggeel ba mu bëgg jokk mu tee xam-xam loolu mooy la mu bëgg bés dana yow ko mën a layal su ko layaloon moom mën na jàll mais ku ne ci ronam du jàll moo tax baax na nag ñu wàccaat ci penc waxtaan ak gone yi gis yonantu yaqazatan am na wala amul danaa leen wax na am na te danañ ko lay insha allah Abdul Aziz ibnu Maaji Suum damay bëgg nag lu ma wax dana delloo jànkat yi ci ay téere pour ko bëgg a gëstu rek mën ko xool Abdoul Aziz moo limaam Malick ñoo bokk génération Malick yóbbu ko woon dara ci xam-xam xanaa Malick kay yàlla dafa def ci moom barke imaam Malick dafa barke loolu bëri nañu bokk moom jamono géeju ci xam-xam ni Malick mais Malick moo génn Abdoul Aziz jànkat dëgg mooy mën a fekk ci téere yi gis ay affaire ku kéem daan la ci xam-xam maam benn ba mu tuddoon Abdul Malik ibnu Maaji Suun baatu Maaji Suun yow jàngkat bi su la neexee nga ne Maaji Suun su la neex nga ne Maaja Suun su la neex nga ne Maaju jiim gi am na ñetti maas yëpp wala bal na li ma bëgg a wax nag ci moom soo demee ci mu yassarul ñeenti xaaj la Seydi Mahanda Baba al allaama Shinqiiti yi moo ko bind mu nekk saraa ci siqalil bund ba muy jàngale baabun fi ahkaami salaatil mayyiti li ma la wax boo demee ci sarxa ba mu yassarul jamil taalibu Seydi Mahanda Baba al allaama Shinqiiti yi ca jullit néew la wax ni da ko fekk yow jàngkat bi moo wax nag lan la wax dafa dafa faatu moom Abdul Aziz papa ji ah, non moom Abdul Aziz mooy papa ji Abdul Malik mooy doom ji moom taalibe Imam Malik la xoolal rek papaam aalim la Imam Malik di aalim ñu bokk jamono mu ne man papa man mazhabu Imam Malik moo gën a convaincre moo tax ñu tuddee ko mazhabu awliyaa yi Seydi Cheikh Ahmad Tidiane daanaa wax ne ustaaz yi malikum doon na ko tiital ustaaz yi ñu naa mu ne malikum terewul ne. am nañ uute tuuti ay masala yoo xam ne imaam Maalik daf naa nii la Seydina Cheikh bàyyee ko am na fukki masala ak juróom-benn yoo xam ne Maalik daj Seydina Cheikh daf ci ber bàyyi Maalik jàll nee na maalikum Cheikh Ibrahima kaana maalikiyal mazhabi suñ magi réew mi yëpp muy maam Alaaji Maalik Si Ahmad Bamba Seydi Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhum jamian kon ustaaz yi moom la Seydi Cheikh Ahmad Tidiane wax Abdul Malik ñëw na man papa man mazhabu Malik lay jàll ko man doy ni may jaamu yàlla mën naa ko jëlee ci imam Malik óolu naa ko mu ne ko bismillah mu faatuma Abdul Aziz ñoo ay sangkat ci biir sangkatam yi benn aaliman ci mu ñëw xool ko muy borom xam-xam bu mag bind ay yu bari ci mazhab bi ku koy gëstu boo ko xoolee da ko gis bi mu ñëwee xool xool mu ngi tëdd mu xool bopp bi xool ba ci tànk yi mu gis luy raf ci tànk yi mënu kii duñ ko sang tey nañ ko tëjil ba suba ndax gis naa ci moom melokaanu koy dund ëllëg sa mu daw di tànk ba gis mu raf tuuti mu ne nañ jëlee ci Abdul Abdul Malik mii ñetteelu fan ba nag fa li ma bëgg a jàngale foofu la xew balaa loolu mbokki taalibe yi nit bu faatoo juróom-benn yàkkamti yi nga xam ne lislaam da ko encouragé daawee su néew ci la bokk summa amaatoo fa axbaroo yonantu faatu altina talaata am ñu ne àllarba lañ ko suul ñu ne guddik àllarba talaata ci gannaaw timis dañ ko doo ko rob mu la dara ci àllarba gi te moom moo ne ko faatu suba teel na fanaani bàmmeelam bu dee ngoon na ah suba teel na fa yendu ji bu ngoon na fa fanaani ñu toog saxaaba yi toog Seydina Abubakar toog Omar toog ak fekkee ko muy bu weex tàll den tooy ci mercredi da ko suuf loola am ab yonent banu Israël ak gis nañu ab yonent ba tey bu faatu saaba yi mooy seen premier yonent ñu fekkee dañu ab yonent moo tax affaire bi jaaxaloon leen problème yi ci amoon mooy ndax faatu na wala faatu muy benn point fu ñu koy suul nuñ koy sangee kan moo koy jullee wala nuñ koy jullee problème yooyu ci la ko moo tax ñu nekki doon ko réglé doon ko réglé di ko réglé ba màrt ci guddi gi doo ko jébal waaye maa ngi ci suñu Abdul Aziz suñu Abdul Malik mii borom xam-xam yi nañu nit bu dee ci géej nga ñu indil la ko bu ko gaa wax nañ ko sang bàyyi ko mu dal Cheikh Khalil mu ne illa la xariqa ndare ko dee ci ndox ndax ndox mi mën na koo gànd fekk dee ut loolu dañ ko cee waxaale tuuti ko ëttëb daara la waaye li ma yëkkati mooy maa ngi ci Abdul Malik ñetti fan mu ne mu ne mu ne ba toog ne isquni sawixan bu ngeen amee ruy wala foo ne may leen ma ma naan isquni sawixan ah gars jox ko mu lekk mos dara wax dëgg yow sëñ bi luy saxaar dee dekk ñun xamuñ ko de ne dee de dama woon benn xëy ba bu ma dal li dal aarifoon yi moo ma dal dama fàddu fàddu gu sori bi ma fàddu fàddu ko sori maa ngi gis yonent yàlla Muhammad Abdul Malik mi ñi ko xam ñëpp def nañ ko mu nekk mu nekk sëriñ bu nekk ci xam-xam ma gis yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abubakar toog ci ndey ñu waram gis na yonent gis na saxaaba Seydina Omar toog ci càmmooyam Omar ibnu Abdul Aziz sëtëb Seydina Omar toog ci wetu Seydina Omar ma dégg kàddu na kii day dundam gi des na nangam ci temps mu doog a faatu mën a xefet mu ne machad bii laa gis ñu ne waa mais lii borom xam-xam la li muy nañ ko topp rek comme wax ne nangam at lañ lañ ko wax pour ñu xam ne lii machad bi la gën a du dëgg jàpp leen at yi am na ñoo xam ne duñ bay weer ci benn fan topp ko topp ko exact date ba ñu waxoon keroog ci la faatu faatu gu leer nañ boroom xam-xam yi ñu ne Abdul Malik ibnu Maajishun nga xam ne marje bu mag la ci lislaam du tijaan du nangam lii daal na ko mësad bii daal na ko mu dundaat diir bu yàgg doo ko faatu mbokk taalibe loolu ay durus yu rëy mi ci mi ci xikaay boobu waaye danaa wax jàngkat yi rek nañ ko seet ci muy seerul jalil salaala ci Cheikh Seydi Mahanda Baba moom tijaan la ki ko nettali ki taalif téere boobu tijaan la muy saraxale bu baax boo xam ne guddalul bu ëpp gëtul bu ëpp te dañuy dimbali suufiyanke ci digg ci ab séeram moo tax ma tudd téere bi ngi ci jaaykatu téere yi beneen bi moo ko taalibe yi e, gis yonentu yàqasatan mu wax ak yow mbaam mu def ak yow bëri na ba jege dayoo soo demee ci Abu Dawud li ma wax boo demee ci al imaanu saxiix bu Sidi ma Sukoyri li ma wax nii ma bëgg a wax nii ma nga foofu ci téere boobu al imaanu saxiix Sidi Ahmad Sukoyri moo ko bind mu ne yonte bi mu faatoo saaba yi dañoo am problème moom dañ koy ndax dañ koy futti sange ko noonu ci yaramam wala dañ ko sange ci kaw yére mi ñoom problème mu gannaaw problème yu bëri ñu dégg genn kàddu ne leen sangee leen seen yonent ci kaw ay yéreem lii ma ngi ci mu wattaw Malik li ma wax riwaaya Abi Daawuda la wa xayrihima nii la ko Seydi Ahmad Sukari waxee radiyallahu anhu kàddu googu ñu dégg ñoom fekk dañu wax ne al il al ilham xayru maamulin bi ilham dañu sukkandiku yëpp dama bëgg lay tayal dara rek ñu ne wàllu yu sàngam dégg na ak kàddu kàddu ko mu ngi jëfandikoo ñu ne ilham du sukk li ma Seyd man ah kay al al al wa mahmulun bihi ida saddaqaw sar mu yaa ngi toog Seydna Abubakar Seydna Omar bu ñàkk caaxaan mi Seydna Ali mu fay dala xam-xam Ibnu Abbas a ngi taxaw ñoo am problème mu nu ñoo sangee yonentu kàddu wax leen ñu jëfandikoo kàddu googu tamit ilham la wala yu jëlee kàddu ci xëy loolu la benn darsu la ci yonent waxu ci benn xadis na su ma faatoo na ngeen ma sangee sama ko yére yi gannaawam lañ ko sànni saxaaba yi ilham la saxaaba yi ci ilham boobu lañ sukkandiku sangee ko ci ay yére ilham ñaari xaaj la mbokk taalibe wax yu ñaari xaaj la wax yu tashriin ak wax yu ilhamin waayu tasri moo jeex tusbaar ñeent rakkale weeru koor nii la aji makka nii la miraas nii la loolu moom bu wilaay àggu ci ñëpp a ci jébbalu li ñu ci sallallahu alayhi wa sallam moom jeexal al yawma akmaltu lakum diinakum amma wahyu ilham ba léegi su fekk yaa ngi koy am toog rek pay bi sànni la dara seen doomam ñaar fukki barab ñaar fukki barab toog na ko xelam daj dara mu leen ko Lamine ay wàcc ñu ñaar fukki barab mën na ko soo demee ja téere xadis yi nag ñett lañu danaan waafaqtu rabbi fii talaatin ñetti mbir yoo ne mag sama borom yàlla daf maa may ma dajee benn bi mooy xijaab ci soxnaa yonent benn bi mooy maqam Ibrahima nekk musalla benn bi mooy ayatul xamri waafaqtu rabbi fii talaasa loolu loola di wax yu ilham la mais ñu ngi wax yu ilham yi moo dal saaba yi keroog moo daal dégg nga de euh, seen nambar duñ ci lu xaj du jeex mbokk taalibe bi ma daw daw bu gaaw rek pour nga xam ne fadlu rahmatu yàlla jëm ma danaa ñëw ci dalil yi ma leen jox pour gis yonent yi xasataan dafa am dafa am léeg-léeg yàlla dafay may ak jaamam wax nañ ko keroog ci benn darsu fii ñetti bët am bëti bopp bëti xol bëti rox bëti bopp soo wànnantoo mu néew doole buñ buñ tëjee bunt bi doo gis la ci mbedd mi moom dooleem bëriwut xol mooy basira bëri ci bopp bi basar la tudd amut taa moo tax du jur li mu jur bëriwut ñu ne ko basar bi ci xol dafa am taawu jigéen day jur muy basiratu bi gën a foor mooy aynu ruuxi bi ci bopp bi boo wànneentoo doo gis bi ci xol bi bàkkaar bëree mu nëbbu kallaa barraana ala qulubi ma kaanu yaksibuuna Cheikh Khalil ngeen xam dafa nekkoon mukaashif pour nga xam ne su fekkee gerte su fekkee rek laa bëgg ñu lay ñu wax seen may dafa nekk mu caché am benn waay booy jaay yàpp ci koñ bi nekk yàpp bu muy jaay léeg-léeg mu rax ci yàpp woo baaxut wala yàpp woo baaxut Cheikh Xalil radiallahu anhu ñëw na ko sëriñ bi yow yaa ngi yaa ngi jaayam yàpp bi mu ne waaw am sutura ndax dañu yore jikko jikko yàlla yi mu bàyyi ba nit ñi jënd ba dem ba dem mu xam ne tey moom du dem du yàq biram bañ dem ne waa ah, sëñ bi rax yàpp nangam déet xoolaal lu la xiir nga yàq rax yàpp sàngam ci sa yàpp wi mun ko xanaa bëgg alal ba mu ne ko bàkko mu ne ko déet man nga ko ba mais yow dama lay jàppale mu ne ko lii mooy lan mu ne ko déet ba ko rek bu ko defati dibitiri boobu ci la mujj nekk zaawiya daanaka waaja teet na lam doon def commencé mu raaxaba nekk jaaykat bi yàpp bu soppali ko nekk rabbaani loolu mooy aynul xulub qulubul aarifina la laha uyunun tara fa dem na aljanna xool naa kon film baa ngay daw ca xëy mu ne gis na ko moom yonent te ñu dégg ñu ngi dund te alxuraan moo ne innahum yarawnahu baidan wa naraahu xariban alaxira sori na ak ñoom mais jege na man yàlla wan ko yónatu ko gis ko ñu ne kon yàlla mën naa jël lu sori wan ko ab jaamam muy benn innahum yarawnahu ba'iidan wa naraahu qariiban ñaareel boroom xam-xam yi ñu ne loolu tam ay alxuraan la nit su bëggee dee dee gis alaaxira gis gis gis waa xëy man ca suuratu xaaf fa kashafnaa anka xitaaka fa basaruka al yawma hadiidun tey moom li doon muur sa bëri ñori naa ko pàkki alaxira pàkki alaxira ko benn bindkat wax ci lu rafet wax ju ma neex al axiratu mooy pàkk ba yàlla denc di fa liggéey liggéeyam xëy bu al axiru mooy yàlla ma ko fa denc axiru mooy yàlla axiratu mooy kër ga benn sufian kéene ne ku bëgg a dee jege ku bëgg a dee gis alaxira ku dee gis axir sufian kéene ku dem ba sëpp dee jàkkaarloog alaxira luy nit ñaareel su bëggee dee mu ne diwa ngi nii diwa ngi nii taxaw diwa ngi nii taxaw commencé di gis rijaalul xëy bi ndax léegi xam na ne arrière amatu avance rek olof tuddee ko kër dëgg ku fa dem wax dëgg fu kasaf naa nga xitaaka fa basaruka al yawma hadiid mooy aaxiratu kon sufiyanke bu jege aaxiru moom day am fa kasarnaa nga xitaaka fa basaruka al yawma hadiid sufiyanke yi fii la ñuy gisee soo fa bokkul nag dem tubaab bu jógee ca réew fekk paanab dugub dugub lay gis saalum saalum ba toog ci wetam gis na ci laax gis na ci cere gis na ci moodaay seen bëri ci dugub day gën a xóotante am ci dugub kii fa kasam naan fa basaru ko yow ma xaddi mbokki taalibe yi maa ngi ci man raani fi lmanaami fa fi liqazati fa inna cheytaana laa yatamassalu biha problème am nag mooy xam nga xëy bu ñaari xëy bu am xëy bun zaati xëy bun aradi xëy bun zaati moom nit ñi ma ko oote kenn ñi ma ko oote loolu bagaas yàlla la xëy bu zaati mooy na muy tëddee nan mel nga xam ne mooy mooy ogg ba ne xëy loolu yàllaa ko xam bagaas yàlla alquran ne nag kenn xamagul yàlla xëy bu nu yi nag moo ñu coppati ci indil la mu jaaree ci nelaw mbaa ci ilham mbaa ci mbaa ci mbaa ci yu mel noonu loolu moom al xaybul loolu moom soo ko weddee rek indi problème lan mooy xaybul aradi seen naw bakkan bu bëggee faatu miiras na boppam soxnaam su ëmb nekkoon ci aaliya mooy bintu xaarijata ma wax ne Aïssa am na cërëb jigéen ci sama alal man ma papa de man maa fi nekk man asmaaw di ak Mouhamad sa doom ak ak ak Abdourahman kan mooy cërëb jigéen bi mu ne jigéen jigéen la mu imbi nekk jigéen te yàlla waxoon na ne la ci biiru jigéen ñi man dog maa ko xam loolu mooy xëy bun zaati mu xamoo seen na Abubakar mooy xaybun aradi xaybun aradi soo gisee borom xam-xam yi toujours ñu am laay yi ñu sukkandiku ne xaybu su fekkee ne xaybu dañ koy dañ koy xam dañ koy xam yéen duñ ciy xam mooy aalimul xayb fala ala xaybi ahadan illa man irtada mais coowlaa ngi min rasulillah borom xikam ibnu ataala ak sakandari mu ngi koy firi firi mu rafet biñ ne min rasulin mu ne min siddiqin aw waliin aw xayrihima dina ko waxut min siddiqin yaa ko ci yokk mu ne déedéet yokkuma ko ci alxuraan na ko min rasul la ku mel ni kon dugal ku mel ni moom te dafa daf koo wane moo tax ñu mën koo xam min rasulin dugal na min waliyin dugal na min sidixin dugal na min xayrihima xoolal nag yàlla mu ne man doomu maa xam xëy bu ak ku ma gërëm ci sama yonent léegi nag ñu ne ministre bi rek tey mooy gis président tey loolu la ñu wax ministre bi ñëw ànd ak chauffeur am ñu ngi pare bi ñu dugg ñoom ñaar moo nag kenn ci njabootam ku uteel ay document mu duggaale ñoom ñaar kon ministre bi lañ mais ak njabootam yóbbaale na leen te ubbi na leen pale bi te gis nañ président bi mais bi su fiyanke takk ci yonantu ma ne may ne bin bin min rasul rek rek su fiyanke dugg ndax ñoom ñooy warasatul anbiya yi mbaam ak taal bi day rëy di ko kon su ko defee nag yooyu yëpp nag soo gisee ñu indi ko comme comme laytaay ci gis yonantu yàq satan loolu dañ koy bàyyi xel ni du wéral la maa kaana li basharin la yàlla waxoon an yukallimahu llahu illa waxyan yàlla mu ne dama wax ak kenn ndale ci wax yu wala ca gannaaw dara ñaar doomu ñu am jàkkaarloog yàlla alkalim wal habib yonent yàlla Musaa moo am yàlla wax mu tontu amul xijaab yonent saa salaam yàlla wax na mu tontu amul xijaab ku dul ñoom ñaar zaatun aliya bu bëgg a waxee yow day doxal seen diggante day rido ba min walaay xijaabin xijaab booba moom la nag sufiyanke yi lu tax nag ñu toog rek ab diir Cheikh Seydi Cheikh ma ne indi salaatul faatiha mu ne waxi yàlla la waxi yàlla la nga bàyyi xel ñaar pour nga xàmmee ko kalaamul alquran ak waxi yàlla bokkut ñaari waxi bokkut alquran mooy baqara ba naas moo tudd alquran yàlla wax na ay waxtu du alquran nga ne ma du lu mën a nekkee nañ dem ci xadis na ba xadis kursi xadis nabawi ak ilham yi ñëwal saalixuuna yi te am nas yu wér yu ko wéral yàlla dana waxtu du nekk alquran xadis kursi yonentu moo naan yonentu wax na jëlee ca boroomam qaala sallallahu alayhi wa sallam an rabbi loolu la ko ko wax du yàlla hadis xusi wax yàlla la duñ ko jullee hadis bi yonent di wax wax yàlla la wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuuxa kon hadis yonent waxyu yàlla la kon wax yàlla la kon dama bañ nga ne ñu ne salaatu faatee wax yàlla la ndax bala nga ko jëriñoo da ngay gëm ne min kalaamil xëy yàlla mu ne maa nafidat kalimaatullaahi man samay wax lu jeex bu ne mi ngi wax mu des nag alquran moom wax ji dafa jeex mu tëj kaamil bi mu bi beneen porox ndoolu waxtaan nit mën na laa oo ci appel normal mën na la oo ci appel whatsapp yëpp ay wax la mën na tëj wo woo sabam bi tey waxee ci beneen appel walillaahi al-mathalul a'laa salaatul faatih ak asalatul ibrahimiya ci débat yi ñuy joxeñee ci la bokk salaat ibrahima dafa génn min baabi taalim salaat faati génn min baabi takrim ak takrim yàlla def ne yàlla mu ne moom ak ay malaakaam dañu julli ñu julli leen ci moom saaba ñu ne ko yaa rasulallah ñun xam ne ñu lay nuyoo mais xamuñ ñu ñu jullee ci yow mu doon allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ba mu jeex kama ibrahim loolu bu benn école taxaw ñu ne bu bi muy jàngale mu ne salli ala muhammadin kon sayidina bitaa la ndax jàngalekat bu mag bi laa lu ko làmmiñ imam Nawawi Yaxya Muhiddin xam ne at yu néew la dund liggéey lislaam loo xam ne duñ ko fàtte ba pénjam yàlla kenn xamul ko gën a barkeel ngóor moom bi mu nekkee xare yaxyaa mi ba demee ca al azkar ca sarxam ba li ma ko fekk dafa dafa nekk dafa nekk xale nekk wu ca wetu papaam kër gi nekk jour leenu xadar yi kër gi leeral nañ ñi weeru koor 27 bu di 27 ci weeru mu ne laylatul xadr damaa wóor ndaw la juróom fukki atam nangam la dund waaye bàyyi na fi lislaam loo xam ne yaxyaa la tudd waaye ba léegi njëriñam mi ngi yaxyaa mi ngi dund mi ngi dund mi ngi dund subhaana man jaala asmaa al ibaad mu arbitré ñaari wax yooyu ndax allahuma salli ala muhammadin ngay waxam allahuma salli ala sayidina ngay waxam imam Nawawi mu ne kaay pour ma dox ci diggante ñaari équipe yi wax allahuma salli ala muhammadin def na lu wér ndax noonu la ko jàngalee woon min baabi taalim allahuma min baabi takrim ñaari baax na wala teraangal waaji min baabi taalim min baabi takrim loolu mooy lan imam Nawawi mu ne booy julli mbaa ngay ashadu anna muhammad bu la ashadu dañuy indi muhammad fixé ko ko fekkee waxal muhammadan soo génnee ci nodd ak taaya waxal sayidina muhammad sayidina cheikh noddu taayawul mun allahuma salli ala sayidina muhammad alfaatixi li ma am yuntu doon jàngale xoolal ñi ko laajee dañuy ci yow loo komm la wax allahumma salli ala muhammad waxut waxut ci boppam dara ndax yow naka jekk dafay sipp dara jaan ci kanam boromam loolu boo amee nag xale ñu yar ko mu dem kër chef de quartier mu yónni ko ci boppam ne ko boo demee ngeen Ablaye Ndiaye mu ne Ablaye Ndiaye mooy chef de quartier xale bi am na ñaar mën na wax lañ ko jàngal papa Ablaye Ndiaye mu ne kenn du ko yor waaye bu ñu ko yoree ci tëkkëri papa papa Abdoulaye Ndiaye a ne papa Abdoulaye Ndiaye xale bee ko ci yokk min bàyyi ma tëkkëri loolu mooy sayidina bi sufiyanke yokku ci baatu muhammadin kon salaatu fatiha dafa génn maxraja takrim ak salaatu ibrahima génn maxraja taalim bokk nañ ñi li waxe ma dem ne salaatu faate yi moo gën salaatu ibrahim yi ñett bëri moo ko yet ci laaminam bii seex seex daana yi lañ ko jox Seydi Ahmad Tijaani min aalimil xëy bi soowle waaye buñ ca duggee dañuy sori ba du ma ñëwaat ci ñi gis yonent te mooy sama max doo mbokk taalibe yi man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqazati fa inna seytaana laa yatamassal wullu sayid am na téere ba mu bi danaa ci danaa ko junj jàngkat yi pour ñu pour seet ko ndax wax naa leen dama bëgg rek fu ñu dem mu indi leen loo xam ne dañ koy mën a dimbaliku daf ne ñaari marji ala ñu jox ay siqaat yoo xam ne gis nañ yonent limaam suyuti mi xam jalaalim suyuti juróom-ñaar fukk yoon ci dundam gis na ko yonent ma gént de yàq satan laa manaam sabuuna marra am na téeréem buñ bind tanwiirul xalaki fi jawaazi ruyati nabii wal malak téere bi mi ngi mi ngi jàggu téere leeral li lëndëm nga gis yonent mën naa nekk gis malaaka mën naa nekk boo demee ca téere boobu tanwiirul xalak fi jawaazi ruyati nabii wal malak dana fekk détail yu sedd sa xol mu nettali ay akaabir min al ulama yoo xam ne gis nañ yonent ma ñëw ci suyuti njëkk ndax mooy marji ala boo xam ne gisuma ci benn fànn bu bindut usul balaaxa naxwu dégg nga siira tafsir quran suyuti fànn ba ne saaraka na ci te gis naa yonantu yàqasakal laa mën a man juróom-ñaar fukki yoon ci mbedd misra ba am na benn bés benn waay yow ci moom na ko man bëgg naa def intervention ci buur bi dama dama soxla te yow dalaa bàyyi xel boo demee dana ma ko may mun na koy eh, eh, doom loolu am naa ci diw sàngam may gii ma am amoon na ko dalaa gis yonantu yàqasakal laa mën a man bés jot mu def mu dem ci buur nitu àdduna def intervention ci benn soxla benn waay gént yóot na ko tey nga ne day gis ya xasatan comme yaa ngi dugg fii buyutu zalamati tooñkat yi bis àdduna yi nga xam ne dañoo jubali ñam ko doon wax ci jamono mu ne yow ma gisati yow suyutu mu nag man pareetuma dugg fii buyutu zalamati juróom ñaar fukki yoon gis na yonent yaqazatan la manaaman ginam suuf nga déglu bu baax nag ibnu arabi mohamad ibnu arabi almaliki abdullah ibn abi jamrata nga xam ne sër la ci kenn ci saxaaba yi bu du mi ngeen xam nga xam ne saayirul faydati du borom xam-xam téere bu ma taxaw fa nii mu jàngale ci jaariyatu ma ngi koy jàngale ne bu dara amutoon lu dul ibnul arabi al ak ibnu abi jamarata al maliki ñoom ñaari ñi nga xam ne yàllaa xam ku leen raw ci jamono kenn ku ne wax bis gis yontu yaqazatan la manaaman te nag ak fànn gu ne am nañ ay patron xadis am na ñoo xam ne bu ñu waxee ñu ne diw sàng moo ko solo ñu ne gongo naxwu am nañ loolu fànn gone am nañ seeni patron yi bu ñu waxee ca fànn dañ leen di dëggal boo leen weddee dañ lay feebar ba ida ma ida qaala alxazaani fa saddiquha fa inna alqawla ma qaala alxazaani te ñoom ñaar ko jël l'imam suyuti ibnu xajar ñaari taalibi imam Shafii la kenn ku ne xujja la ci xeet bi kenn ku ne gis naa yonantu yaqazatan la manaaman ñaar ñii maalikiyaani ñaar ñii shaafiiyaani kenn ku ne ci ñoom nag xujja ci xam-xam woote nañ ñoom gis nañ yonantu yaqazatan la manaaman Ibrahim al abu suud ibn abil ashair abu hasan asazili abdurahman alxanawi abu madian alxaws muhammad ibnu zeyn almaadix abul abbas almursi seyd ali ibnu wafa muhiddin ibnu arabi alxaatimi ñoom ñëpp kenn ku ne ci ñoom gis na yontu ñu ne yaqazatan la manaama bàyyi ñes raytu rasulallahi jëran way xasalan bi parisa wala zaaka lu mahallu mahallu ma gis naa yoon te yaqasatan laa mën a amal fan yii ci gannaaw Cheikh Baye Faye doomu Baye Kabiru Faye dafa set fii ci daara bi nettali na ci papaam fan fan yu mujj ci bàyyi mu may dégg mu ne bàyyi dafa toog ci néeg bi ci fan yu mujj mu ne am benn homme ñu bëri ay grade ñu capp ay grade fu nekk bàyyi ko hôpital waa ji duggee ci biti ñëpp ñu toj nit fu mu romb ñu toj ba naa si ci bàyyi kabir fay ci bunt bi bàyyi nekk ma ne ko ana Cheikh Ibrahima ma ne ko dafa mel ne fàtte na de bàyyi ko ubbil ko mu ubbil ko ñu jàmmale def nañu def pare ko kaay xam nga kan la mu ne ko yonte yàlla Muhammad la lu ne lay feeñoo waaye na ko yonent ma Muhammad la nooy lay fay jaar na ci piste bi ba dugg ak i garaatam bàyyi di ko tuujal te xamul kan raaytu rasulullahi jëran way qasatan mu ne li wax ju mu ne bay dafa woo ko sama làmmiñ mission jeex na sama wax lañ ma mayoon ci kaddu jeex na waaye kaay jël sa nopp teg sama dënn déglu malaaka yi ni ñuy waxee mu ne papa ma ko nett mu nga fi ñu toll waxtu bi ma wax yow sama dëwru lamin jeex na waaye tegal sa nopp sama dënd nga déglu béykat dafay ko wax ci tukki mi nee na Cheikh Kabir Faye ko ko mu ne góor la góor nag dana am yu mën a feeñal am yu mën a kon bu kii maa ngi ci bis yontu yàqasat laa mën a ma li ma wax nii nag ci ma ñii ma la wax ba demee ci almasail tijaaniya li silmi wal musaalama Abdoulaye Wulu Seyid moo ko bind mi ngi dund mi ngi fi ci gànnaar su da su ko dara jotut dana gàmm si su ko dara te yàlla bu ko dara jot moom la tuddee chaayirul faydati almasail tijaaniya la téere bi tudd dana la limal attaay ba ñu gis yonent yaqazatan la manama fa lay jàngale benn dars yàgg naa ko wax te boobu gisuma masala bi mu ne bàyyi la gis mu ne maa topp di ko xool mësuma gis sëriñ bi kurus yàgg naa ko wax te mësuma gis masala damaa xam ne comme kurus mag yi daanaka daanañ ci def lu nekk pour yàlla wala yaa ngi ko ci sigal bi salaatu ala nabi boo nee war a kaa bëgg julli bul ko xalaat mu ne bàyyi téere bi ma lay wax ba dee man foofu mu ne sëriñ bi laa gis mësta sànni kurus su noonu julli bu ko teg ci lalam bi wala ca da koy gunge ba mu àgg mu dugg si doo ko kàbbar lii ma wax boo demee ci téere bi ma tudd da fekk wala lu see dégg nga nekk na ci xàq Cheikh Ibrahima. darsu la dañ ko yóbbaale kon mbokk taalibe yi manque ñi doon gis yoon tu yaqazatan la man ama su ko defee nag boo demee ci al minah al ilahiya fii manaqibi saada al wafaiya lim ni faris téere la lii ma la bëgg wax manca comme débat bi dafa critique foog ma tudd ay téere pour jànkat yi waaye ñun gis yonantu am na wala amul suñu problème non non loolu noonu nekk suñu problème xanaa waxal xale yi dimbale leen comme suñ mag ñi liñ nekkoon am na sësluwaay lii kat moo waral gëstu bi Seydi Ali al Qawaas ku kéemtaan mu ne bi nekkee xale bu ndaw di jàng alxuraan booba mi ngi am at yu néew nekk ci daara toll ci wadduha mu ne fi leen sëriñ bi di jàng rek mu xool gis yonent mi ngi taxaw Seydi Ali al Xawaas suñ mag ñi nga xam ne ñoo ngëngatu tasawuf ni fuqaayee respecté seen kàngaam bi naan ibnu Qasim mu ne ibnu Habib mu ne ibnu Mayisun mu ne niñ niñ ciy dalawaat seen maraaja yi ñun am na ñoo xam ne bu ñu tuddee ci aalamu tasawuf dañ naan sami'naa wa ata'naa wa saddaqnaa Seydi Ali al Xawaas mu ne ma nekk xale bu ndaw gis yonent mu taxaw ci suñ daara ji mu dem ma dem ba am ñaari fukki at benn ma gisaat ko mu ñëw tiim ma taxaw bi ma tiim taxaw mu ne ma santal yàlla bisaare ko ay may Seydi Ali nekk nettal mu ne keroog ci lañ ma leen laminu yonent may wax niyaabatan an mawlana rasulillah sëñ ali alxawaas ci alminahil ilahiya lii ma wax boo demee da nga ko fekk muy lu wér a wér a wér a wér a xisaab zaaka al aaraabi nga xam ne al aymatul aalam al bayhaqi fi shu'ab al iman ibnu kasir fi tafsirihi alqurtubi fi tafsiri annasafi fi tafsiri lii ma bëgg a wax ma nga foofu pour xale yi bàyyi ko xel benn araab yi dafa ñëw ba ci yónni fi ñu ko denc ci rawdam xaysu rawd al munif al sharif ne ko yaa rasulallah sa borom moo ne walaw annahum iz zalamu anfusahum jaauka fastaxfarullaha wastaxfara lahum rasul la wajadu laa tawaaban rahima ñëw naa ak i bàkkaar ya rasulallah ñëw naa di tuub ci suma borom di jaaree ci aaya ji sa bunt lan mooy na ñu oo mu dégg kàddu na ko yaa fulaan xat xufira laka dégg na kàddu bi yonent kon yonent wax ci xëy bu jaam bi léegi loolu mbokk taalibe yi yàllaa ko may jaamu moo tax su fekk da ñu naan nuudiitu fii sirri dañ daan wala xiila li Seydina Cheikh teel jawere maa ni haddasani qalbi an rabbi sama xol bi wax na ne yàlla mu ne léegi nag mu des taalibe yi benn dars ci wax xëy bu bàyyi ko wax yàlla muy wax ak jaam ñu ne day nekk bi xarafil qudrati wa bi sawtil azali xaraf la boo xam ne doon nekk sawtul azali jaam bi day toog rek yëgg ñëw ci moom bi xarafil qudrati wa bi sawtil azali ma koy misaalee xale yi toujours oto wala garab gi bëgg a daanu fekk benn chinois benn américain benn français benn arabe joola pël naar olof nekkoon ci doon garab bi di am benn projet bu ñu nekk garab gi di daan ñoom juróom ñëpp daw garab bi wax ne kenn ku ne su ma fekkee nga kenn ku ne juróom juróom dafa ñu daw garab gi mën a fekkee nga dee angale bi dégg na ko su ma fekkee nga dee te laa ko angale naar bi dégg na ko chinois bi dégg na ko pour ñoom ñëpp daw nañ ci garab bi ndax mu ne su ma leen fekkee ngeen dee nu mu làkk xarful qudrati sawtul azali yàlla buy wax ak ay jaamam wallaahi masalul ala nii lay waxee ay jaamam da ngay toog rek yëgg ñëw après nga daal di wax loolu mbokki taalibe yi kon lii ma leen wax nii ku ko seet demal ci maraaji yi mën a wax soo demee ci naylul amaani nga xam ne xadis bi ma leen doon wax débat yaa ngi ko fees del da nga ma fekk ne man aani fil manaami fa sa yaraani fil yaq xadis bi mu ngi téere bi nga tudd naylul amaani fi xadisi man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqazati fa inna seytaana laa yatamassalu bi Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani kenn la ci suñ maraaji yi suñ masaanid yi suñ al aimmatul aalaam kenn la ci dafa nekk lu ndaw nekkoon ca Bagdaad te borom xam-xam bëri fa doon fees dal mu ne gis yonent bi doo wax mu ko yaa Rasulallah lu may wax mu gis ko yàqal sa dal mu taf la ci làmmiñ wi gémmiñ bi juróom-ñaari juróom-ñaari yoon ëf ko na ko waxal mu demaat ba ci digg ba mel ne ku am lu ko solo kàddu gi mënut a ji mu ngi Seydina Ali maamam mu tafle ci làmmiñam juróom-benni tafle na ko waxal mu ne ral rek wax keroog la wax ba ni muy delloo xëy ba noppeetu te lu wax dëgg la radiyallahu anhu nee na yónni laa gis ak Seydina Ali te Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani ni xam-xami xadis yi fonkee seeni maraaj yi dina tudd naan diw ma ko solo fuqaa yi am seeni waay. nuxaani am siir wooyi olomal balaa xam Abdou Qadir Jurjaani yi di ko tudd dana ko ëseyxu ni fànn bu ne amee seeni masaayix Cheikh Abdou Qadir Jeylaani alamun min alaami tasawuf nee na raaytu rasulallahi raaytu Ali ibn Abi Talib fa ida qaalat xazaami fa saddiquha fa inna al qawla maa qaalat xazaami bokk taal bi loolu wér su ko defee Taajuddin ibnu Ataayillah Sakandari boo demee ci Lataaiful Minan téere la Lataaiful Minan mi ngi nettali ne mu ne dafa am benn waay boo xam ne dafa wax Abul Abbas al Mursi na ko góor gi man daal bëggoon naa bokk ci ñu gis yonent wala ñu di ma gis ko ko mën a gis wala ma gis dara ko ma si mu nekk doom kaay nuyu ma nuyu ko nu ko saa bi yeddi haza bi yeddi hazi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy doom laala bi léegi laa nuyu yonent yaqasatan laa kon gis yonent yaqasatan laa am na ñum të boo ne milliard am na ñu faxa seen nox am nañu faxa seen nox xamul lu milliard waaye am na ko mën ja ay milliard boo ne million am na luy million sëriñ lii aw ma kenn aw ma li ma mën dafa toog benn sufiyaan ki oo bind ko leen ndax sëriñ bi yow tee nga béy mbooloo ni nga jaxasoo heure bu yaa ngi si taari bi guddi bëccëg tee nga beeru def intisal def xalwa du wéetal sa borom jàng alxuraan maalik nit ñi nit léegi jaruñu ko maa yi na ko kaay ma wax la nag yàlla moo ne nahnu xasarnaa baynahum ma'ishatahum gis nga ni muy séddalee xaalis bi noonu la séddalee jëf yi am na ko am na fàttu ci ko ci koor am na ko am na fàttu ci jàng alxuraan miin na ko neex na ko waqafam du tardé am na koo jàngal alxuraan benn usine ak day ci fàttu jaamu yi nga am fàttu da lay yomb jaamu yàlla boo amul fàttu def ko am na ko am ne jàngale ko junni salaat faati mu buddi la ko garab ñoo yem dafa amu ci fàttu waaye jaar bi léegi fukki junni salaat fàtte am na ko moo gën a yomb ci moom mu dem sangu ci ñëw am fat ibaadaat yi dafa am ay wasaare boo ci amul fatu da lay jafe ma na ko doom boo ko kaay ma wax la sa xalwa ji li ñu ciy yëg di leen jàngal ah maa ngi ci yëg lu bëri maa ngi ci yëg lu bëri kon sufiyanke ñaari xaaj lañ sufiyanke bu nekk xalifa ci meew ak sufiyanke bu nekk xalifa ci soow meew mën naa baj baj yi te la ëmb lu bëri soow moom nag tekk moom baj bajiwut kenn ku ne ci ñoom yaa sama xaar imaam Maalik ne ko sa wéetaay bi ak sama wetu loxo yi na kenn na kenn ki roy meew kenn ko roy soow xad alima kullu nasin mashrabahum sama wéetaay gi baax na sama wetu loxo baax na lii la ko tontu te lii ma leen wax mbokk taalibe yi ci Seydi Degere Abul Abbas al Mursi ci ne sax fat rasulallah man ñu la taayifa minan foofa la nekk mbokk taalibe yi kon yi ma leen wax ay maraaji la bàyyi nag def nañu radiyallahu anhu ku ne gis yonent amut weer na sa bopp mooy yow doo ko gis ku ne gis yonent amut yaqasatan mooy yow wan nga ne bokkoo ci ñi yàlla may Abul Hasan Assaazili waxoon na ne sama téere bi tamit alxisb bi mu bind ne nee na defaruma ci benn baat ndara ci isnu ci lu ma cee def moom ma ko wax lu ma ci bàyyi moo ma ko digal kon lii la wax kon loolu yëpp mbokki taalibe buñ ko bàyyee xel kon danañ xam ne bis yonantu yàq sa ban laa mën a am am na fa may tëjee nag gannaaw bi ma joxee ay maraaji ak xadis bi fa sa yaraane fi ne xasati ñu ëpp ci ñoom dañ ne xaaréwul àllaaxira ku ma gént bala ngaa dee da nga jàkkaarloo ma dégg gu yaatu la ci groupe bu bëri ci borom xam-xame xeet bi ñe deen fi ne xasati mooy dama gis ci àllaaxira ñu ne yóntu yàlla ñëpp ko fa gis yóntu ñëpp ko fa gis àllaaxira denc yàlla yi yàlla da koy fangaaral ci biti yow ma tub la saraayu alaaxira amatul kumpa kumpa àdduna la xem alaaxira péewu jàkkaarlu xaqaay xiira yow ma salaayir gis yonent ya xasatan moo ko njëkk a oote ci naka bi muy rañaan romna Moussa ala alkatibi ahmar qaiman yusalli mooy wax romb naa Moussa alal kathibi al ahmar qaiman yusalli nga déglu romb naa Moussa mu ngay julli kon gis na la gisu ko kon gis yoonu ab yoonu yaqasatan muy benn mu war a jël départ pour tukki mu rëy moomu di rañaan bi yontu yëpp ñoo mu jiite leen julli kon gis na Adama ba yontu yàlla Isa yaqasatan laa mën naa xanaa loolu wér na nga ci téere xadis yëpp wax mu rañan nga ba bët départ asamaan man ci yàlla aadama te jiitawu na ko julli baytal maqdis fekkaat ko foofu aalamul barsax moo gën a moo gën a garaaw dafa garaaw lu rëy dafay ndaw lu xat fii dafay yaatu ma jox la benn dalil jàng na ci xadis yu wér ci Sahih Bukhari na bu nit ki bu duggee ci bàmmeel malaaka yi dañoo di ko laaj luy sa diine malaaka yi fuñ bàmmeel buñ des ni mu nga xam ne néew bi dafa fa xaj malaaka yi ne di ko laaj di waxtaan ak moom yu du feeñu noonu ndax xam na kii te mu yónni Yàlla Muhammad la xoolal aalamul barzax li xat fii day yaatu fa kon gis yónantu yàq sabal yónantu mi ilimaana xeet bi moo ko njëkk a def yi kon rañaan gi rek doy na sëkk pour layal rek gis yónantu yàqas na laa mën a amoon du wér gis na leen ci asamaan yi jiite leen baytul maqdis li war moo gën a gaaw te kenn ku ne fekk am na sa place. loola ku ko mënta weddi doo weddi gis ab yonent yaqazatan la manata loolu lu wér la mbokk taalibe yi nañ ko bàyyi xel loolu yëpp ay durus la yoo xam ne suñ ko dégloo mën nañ cee amee argument yu bëree bëri ci li ñu bëgg a wax suñu li leen di jaaxal toujours nag rek mooy doomu aadama néew dooleem ak tuuteem waaye suñ benn mag mu baax dafa jàngale lu am solo su ngeen nit yaa ngeen tolloo bokkoon daara wala bokku marché bi wala bokku absa bi bokku quartier bi mu xëy na gis naa yonantu nga dàq ko jàng foofu na ko doon dëgg yonantu kenn ko gis gisoon dama te def loolu mustahil la yow mi nga xam ne barki demoo jaay problème yëpp mooy alam nurabbika fiina walida xanaa kii Ablaye Ndiaye barki bi moo ñaay ku tardé alam nurabbika fiina walidan moo la tardé Iblis loolu moo ko tardé aadama mi nga xam ne bëgg nañ bi ko yàlla ci kawam waaye xam na aslu aadama mais xamul fadlullahi mbokk taalibe yi boo yoroon sa téléphone bu suñ téléphone yu ndaw yi. boo demoon boo demoon fa boo demoon ci autoroute bi mën na jël junni millions yi camion ak junni étage sa téléphone bi te boo jotee kay biir rek mu toj te attan na étage may nga lu ko neex de barsàq nii la mel kat barsàq day xar mais attan na lu bëri téléphone boo xam ne ñaata camion moo ci nekk ñaata etaas ñaata garab ñaata montagne ñaata ay bërigo ñaata lu nekk moom téléphone lu ne attan na ko di ko wane ngay xool mu lokk ci gémminam bi te attanul birig attan étage te attanoo birig loolu day jàngale bëgg taalibe day jàng yàlla mën naa xatal ci fii yaatay lay ca fële inna allah alam taalam anna allah ala kulli shay'in qadir si asandem ci gis yonent fa lay tëjee lan la ci wax moom xam ne moo wax fii ñëpp dégg seen raamee bi Thierno Kairé ñoom fi ñoo suñu mag ñun luñ dégg ci Thierno ñoom lañ ko jëlee Thierno Moussa Ka Cheikh Ablaye Ndaw ñoo ñooy magi kër gi ak ñu mel ni ñoom euh, Thierno yàlla ko dimbale woon li Ahmad Zarouk waxoon ci sëriñ Ahmad Zarouk xawaayidam boobu jànkat bu ne war na ci taxaw xawaayidu tasawuf bi mu def lépp loo lépp loo soxla ci li ngay dund lu la ko mën a wéralal dëgg-dëgg maa ngi dénk def topp Seydi Ahmad Zara boo gisee kaasif bàyyi dëgg ko tudd fi tasis al qawaid lu bàyyi bëri dégg lu muy wax la bàyyi borom xam-xam boo gis mu di ko cité baal jàppal boo demee ca ifham al munkir Seydi Hadji Malick boo demee ca rimaax Seydi Chamar Fouti seen akaabir ulama yi ñuy dellu ñoom da leen bàyyi xel seen i téere ñu ñuy jàngal nañu li ñuy dund soo ko bëggee di lay del déglu ñii Cerno radiallahu anhu dafa wax ci Mawridu Rida pour nga xam ne gis yonent yi xasatan ñaanal yàlla may la ko mais bul ko wedd nee na allahuma salli wa sallim ala sayidina muhammadin jamali zuhur wa mazharil jalali wal jamal adada mazairil xalqi afwan adada mazairil xaqi salatan taftahu lana biha baabal mulaqaati bi rasuli sallallahu alayhi wa sallam lu baax wa mushahadati jamalihi wa samaai xitaabihi wa bi dawaami ru'yatihi bi jaayi xaq qadari wax daal azim fa laa tëjee sama Maodo ceeb nooy wax bàyyi wax naa la ne na gis naa yonantu Paris daaral fasiqiin naa ko wax ay xale ku mën na gis yonantu daaral fasiqiin da ko gis fii axlaaxil faasixiin rëy kër la ci kër faasixu rëy soo nee xam-xam ñëw wala daraja wala mbooloo xol bi bëgg a fudd gisal yoon na mu oyofee kon gis ne yoonam daf fii daaril faasixiin kër ci daaru faasixiin ay rëy ci daaru faasixiin la nay la bokk ñun mu rëq ci nit ñu ko ci yàlla jéppi ko kon nay daarul min diyaaril fasiqin la dama bëgg am koo dimbale sa xolob bakkan sa xolob alal bi fuddu gisal yonent fii daaril fasiqin kon ku ko mën a gis yaqasatan ci daar fasiqin gis ko maanan min axlaaqil fasiqin dar su lañ ko yóbbaale mbokk talib yonent mooy ba Ceerno mooy wax radiallahu anhu mu ne allahuma salli wa sallim ala sayidina muhammadin jamaali zuhuri wa mazharil jalaali wal jamaal adada masaa'iril haqqi salaatan taftahu lana biha baabal mulaaqaati bi rasuuli Cheikh mu ne yàlla maa ngi julli ci yow maa ngi julli ci yonent bi julli goo xam ne li ma bëgg nga may ma ci mooy may dajeeg yonent may dajeeg yonent di gis taaram bi di dégg kàddoom gi di bànneexoo gis jëmm ji mbokki taalibe yi lii la Cheikh wax baabal mulaaxaati bi rasuuli wa mushaahadati jamaalihi wa samaa'i kitaabihi wa dawaami ru'yatihi ko bis yonent wa sallam kon man raani fil fas yéene fi liqazati fa inna seytaana laa yatamassalu bii mbokki taalibe yi lii la ma taa bi ci Maodo bi ñu joxoon mu des nag wax naa leen salaatul faatiha wax yàlla la may du alxuraan du du wax yàlla yëpp alxuraan la yàlla mi wax ay jaamam te nekkul baqara ba naa baqara ba naa si kenn ko moom mu yónni yàlla muhammad sallallahu wa sallam kon kalaamul xëy bi bëri na yaatu na suyaangee saxal nañ ko al aalimul jalil Seydi Ahmad ibnu Hanbal jàng na téeméeri kaale ci gént gis boroomam gis yàlla yàlla na ko yaa Ahmad ndax xam nga lan moo gën ci li ma sama jaam bi defal afdalu ma yataqarrabu bihi ilay abdi mu ne ko tekk mu ne ko xiraatul qur'ani mu ne ko bi fahmin aw bi xeyri fahmin kalaamul xaqi na ko bi fahmin wa bi xeyri fahmin ahmad imam nga xam ne mooy imaamu ahli sunnati wal jamaa mooy sëñ ahmad ibn hanbal kon mbokk taalibe yi wax mën naa nekk waxi yàlla te du nekk alquran alxuraan wax yàlla la mais du wax yëpp tamit alxuraan la kon yàlla mën naa waxi ak jaamam xadisu xudsi wax yàlla la duñ ko jullee xadisu nabawi xaqiqatan wax yàlla la in huwa illaa wahyun yuuhaa te duñ ko jullee ilhaam yi ñëw ci xolu aarifuuna wax yàlla la te kenn du ko jullee yëpp kon wax mën naa nekk kalaamulaahi te du bokk ci alxuraan kon salaatul faatih min kalaamil xëy bi wa laysat min alquraan fi shay dinañ ko bàyyi xel moo tax bi ñu sonalee nag topp ñu si ñu ne Seydi Cheikh Mate ma waxta waxee wu ko noonu ñu ne Seydi Cheikh Mate Diagne mu ne salaatul faate moo gën jàng alquraan noonu déedéet dafa kenn ki mu ne julli ci yontu moo gën ci moom ndax yonentu mu ne bëri na ko jàng alxuraan alxuraan bi la rëbb boo ne mbugal ñee la tooñ kat yi tëdd dëkkee tooñ yaa nga jël paaka dégare sa yaa ngi ba pare waxtu bu nekk yaa ngi rëbb nga koy def kon yow fexe ba set dem jàng alxuraan moo gën ci jàng alxuraan moom laa waxoon ñu yàggut yaakaar naa ko wax wax naa ko jotaay yu bëri ñu ne leen waaye dafa yore malade ñëw ci hôpital bi malaat bi dañ koy la ko yëkkati ki ko yore ne malade bi ne mis wi moo ruy moo gën ci moom mis benn waaye dégg mu wax rek mu génn fekk nag waa waa ñu mën a wax safaan mu a ruy mu gën mis waaye mbokk taalibe bi muy ruy mu gën musu mais ci ten waaje feebar ba bu ko weñ laalee sax dañ koy dañ pour weñee naaw kii boo ko joxee tànkab xar waa tànkab ko kaay boo ko xoolee ruy kay ruy bi jàll kon ruy ca waajooja mu gën misu ci lu waajooja salaatu faati ruy la ci ñuy feebar ni mel ni man alxuraan misu la ci ñuy wér Seydi Cheikh Ahmad Tidiane mu ne yéen ñi feebar dem leen naan lu yëpp salaatul faati su ngeen wéree ngeen dem lekk mis wi alquran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك